Euh, géej wax jën te jën boobu tey jii nii jafe na pour lool pour ñu aar si biñ fi sant usine de farine de poisson yoo xamante ni dina tax moo yi jën bi dem di jàpp ci jën bu sew bi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo war a màgg ngir jur yeneen jën jën bi nga xamante ni dama war a nekk ci géej gi nga xamante tey dañoo war a mën a tax ñu gën a am possibilité wu géej gi ressource bi gën a ressource bi gën gën fee nekk jafe-jafe boobu mooy bi nga xamante ne mooy des wàllu gestion de ressources beneen bi ñu wax si volet environnemental ku ne xam na ni usine farine de poisson fépp fu mu nekk jafe-jafe yi wér-gu-yaram dina fa am ndax li tax mooy xeet yi nga xamante ne moom moo si bàyyeekoo jafe-jafe yi nga xamante moom mooy indi si wàllu wér-gu-yaram aussi li nga xamante ni si moom moo jëm ci wàllu euh, pollution bi nga xamante ne aussi da koy émettre lu jëm si lu mel ni làkk yi nga xamante ne si ñuy defal seen seen seen ndox yu bon yi mais aussi li nga xamante ne moom moo jëm si air bi nga xamante ne aussi dina am pollution Euh, te loolu lépp nekk loo xamante ne day indi ay gaañ-gaañ ci euh, xam na ni suñu jigéen ñi ne suñu ginnaaw ci jigéen lañu seen métier mën na gën a protéger wu il faut ñu xoolaat taxawaayu farine de poisson yi parce que ku ne xam nañ femme transformatrice seen doole bëreetul mais dem nañ ba tey jii métier nar a te dara warul ko implantation usine de farine de poisson yi bokk aussi ci li nga xamantene moy nuyu mémorandum bi ñu fa am transformateur ñu leen di jooyal te depuis des années ñu diko ko muy ñu am reconnaissance juridique am ay carte de métier te lool yaakar na ni jottu nañ ko depuis at yu bari bari bëri mu ànd ak li nga xamantene mom mo jëm ci avenir bi usine de farine de poisson lool nak li nga xamantene mom lañ ci bëgg moy état du Sénégal ñu xamni ñen man di investisseur yi war nañu ñu ci pour investir mais ca la investir bu dañu bay lor nañu war nañu jugaat taxaw xol ci loolu dañuy interpellé autorités yi pour ñoom ñu wàcc defal seen bopp wàcc si terrain yi nga xam moo jëm ci usine ferme de poisson yooyu muy li jëm seen nekkin ak doomu aadama ci wàllu environnement mais li jëm si si côté volet social mais aussi li jëm si côté volet économique seen diggante ak population yi xamante euh, ñoom la ñu parce que wax nañ ko léegi tey jigéen ñi ma xañ liggéey te amul benn usine de ferme de poisson boo xam mën naa employé plus de vingt personnes benn bu kaay nga xam ne yëpp tey ji population Kayar bu Nduxura Pël euh, bu bu bu Joal ak euh, Abene euh, Gànjool ñooñu ñëpp tey ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xamante ni si man nañu te li koy waral mooy usine farine de poisson yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal la nga xam moom la ñuy dégager ñoom ñu koy dund mais la ñuy dégager si pollution mu jëm tamit si jaww ji mais lu jëmaale ci doomu aadama si boppam di koy indi ay jafe-jafe si wàllu li nga xamante ni moom mooy nekk ni loolu moo waraloon tey jii ñuy ñuy célébrer li nga xamante ne mooy journée mondiale des océans le 8 juin te comme le 8 juin weekend la il faut ñu profiter si occasion bi balaa le vide ñu ñëw déposer si mémorandum ci autorité yi ngeen xamal leen li nga xamante ne si moom lañ nekk di ko dund ngir ñoom tamit ñu jëm si ut saafara parce que yaakaar naa loolu moo tax leen ñu teg leen ci bopp réew